kon borom bi ne loolu la leen malaaka yi di wax waxu leen dëgg de waxu leen dëgg de te ñun xam nañu parce que yàlla xamal nañu ne jëf ngeen lu ñaaw wax ngeen lu ñaaw kon nag jël leen yoon woowu moo leen di yóbbu jahannam te bu ngeen fa du ngeen fa de kon gëñ nañu ne ah fi ñu leen dalal ñaaw na te ñan lañ fa dalal mooy almutakabbirin mooy ñi nga xam ne dañu dañu rëy rëy nañu ci nangu dëgg rëy nañu ci dellu gannaaw ndaxte loolu rëy rek moo koy def yonent bi sallallahu alayhi wa firil ñu rëy batrul xaq axamtu naas bu ñu la waxee dëgg nga bañ mu ne ku rëy a ngi ñëw nit ñi koo gis rek xeeb nga ko ili, koko ku toro. a ngi ku ko def nag torox ndaxte da ngay dem ba gis nga juum nga waaye doo dellu gannaaw mukk parce que kon nit ñi dañuy xam ne juum naa ñaata doomu aadama moo leen wër na juum muta mais munoo iri. ka waane ñu dellu gannaaw parce que mutakabbiruun dañuy rëy ñaata ci ne xamuñu mais leen laaj mukk ñu ne dañ leen di laaj ñuy wax musiba fekk limaza mutakabbirun kon yàlla nañu yàlla musal rëy moo tax borom bi subhanahu wa taala mu ne lu bon a ngi noonu ku alku rek sa rëy la alak moo borom bi subhanahu wa taala leeral seen situation ci aduna mu ne innahum kanu ida qila lahum la ilaha illa allah yastakbir mu ne foo taxawoon nga ne leen kenn dong moo yeeyoo jaamu rek ñu rëy tey ñaata yoon nga koy wax rek ñu ne la dangay diingat waaw kan nga diingat yaa yàlla rek moo yeeyoo ñu jaamu yàlla rek ñu barkelu ci moom yàlla rek moo yeeyoo ñu yaakaar ko yàlla rek moo yeeyoo ñu wékku ci moom yàlla rek moo yeeyoo ñu barkelu ci moom boo ko waxee ñu ne da ngay diingat koy diingat daa am ku ñuy méngaleeg yàlla xanaa dañu jàpp ne war nañu mun a barkelu ci moom war nañu mun a wékku ci moom war nañu mun a gëñ ci moom xanaa daa am keneen ku dul yàlla boobu am lahum ilahun gayrullah ndax boobu dañu denc ku ñuy jaamu keneen ku dul yàlla ah loolu loolu situation la boo xam ne nit ñi dañ ko war a diraasa mu leer dañuy jaamu yàlla nga ne dañuy diingal yonent bi dong la ñu war a roy nga ne dañuy diingal kan lañu war a roy ku dul Moustapha mais nañ ko leeral kan la yàlla joxoñ ku dul Moustapha mu ne ñu mu ngi noonu roy leen ko kan la ba boo nee nañu yonent bi lañu war a roy ñu ne dangay ngay xanaa da am yow beneen roy waaye bu dul Moustapha ba nit ki buy leeral ki ñu war a roy nga ne diingat na kon moo bi tudd ko yomb na waaye mu joxoñ la ngay wax yombul de parce que fañ koy jëmale nekku fa fañ koy jëmale nekku fa léegi sax boo nekkee ay nit boo pakastaloo ne subhanallah sax ñu ne yow da ngay dingal lan moo tax nga ne subhanallah ajib booy lekk nit nga ne bismillah ñu ne da ngay dingal lan moo tax nga ne bismillah te keneen dina wax Moodu kenn du wax dara keneen ne Biraan kenn du wax dara keneen pakasal wala oto yëngu nga ne abdallah ken du wax dara bu allah ñu diingatna man extrémiste laa man nangam laa ya axi malakum lakum kayfa tahkumun waaw ana xel yi ana dëgg lii mooy suñu problème dañ dul nangu dëgg te dara terewuñu dëgg lu du rëy doomu adama de parce que réyoo yàlla nag teral na la yalla mayna la lu bari lool waaye réyoo boo seetee da ngaa tuuti namrut mi féttéerlu woon lu ko yàlla mbugale yoo iya. Mat bu nekkee iya, ci salaan sax doo nelew matt doo nelew yoo bu nekkee sax kii doo nelew ah xoolal rek budget yi ñu génnee ci ay sànke imprégné ñaata milliards la ci àdduna lu ñuy xeexal yoo inna lillahi doomu adama réyul de mais ana xel yi aynal uqul xel yi rek ñoo fi nekkul il faut nga wut ay anam yu dara amul dugg ci sànkeeg di def nangam ak nangam fekk dara du xeex ragaloo dara lu dul yoo nga taxaw fétteelu na dina taxaw ci kanamu yàlla الله أكبر لا إله إلا الله